asalaamualeykum sama mbokku waa mbedd tv télévision vision vision télévi eh, tv docteur Siti dellu si na tey jii comme Siti jàll na ba pare damay wax ci wàllu beneen feebar boo xamante ni ñoom ñaar ñoo ànd lu tax ma leen di boole parce que ñoom ñooy ànd Siti troisième mois de grossesse lay dugg hémorroïde dugg quatrième mois de grossesse ñu làng nag bu fekkante ni euh, gàngoor gu ñuy takk la ceen bu ñuy takk dama naan torsade la torsade moom ñoom ñaar ñooy ànd troisième mois de grossesse kii quatrième mois de grossesse ñu làgg ah hémorroïde li koy joxe euh, jigéen ñi nga xam ne dama leen koy tere su ma leen koy tere ñu naan lii muy tere góor ñi lay lor ma ni leen mukk ci àddina de dama ngeen xamul tasewu leen nag koo xamante ne mën na leen liyaar ba ngeen xam lii lu tax ñu da koy tere gis nga buyon yi nga xamante ni moom la ñuy leen naxee ñoom ñu di ko lekk nañu ko bàyyi bis niki ki buyon bouillon yooyu ka ko defaroon dañ ko travestir ewut koli bi mu ko defaree moom da ko doon reyee naar yi ak palestiniens yi ñu doon xeexal dafa ni woon lii ma def xeñoon xereñ la lool ci chimie parce que am na produit yoo xamante ni mi ngi ko ci def cyclonate de protoxyde glutamate de sodium ammoniac yooyu seen pH c' est largement supérieur à sept donc extrêmement toxique dafa ni woon sama noon yi su ma leen koy reyee bu ma ko joxee samay sama sama ay farandoo ba ñu nax leen ni lii dañ ko war a lekk bu ñu nangoo mu dugg seen dëkk jarul ñu koy lekk sama affaire bi baax na bu leen ko tegee foofu xeet gi bu leen di xeeñ dañuy de xoolal rek lu ñu naan la xeet bu la xeeñee luy dugg fii yow nga ni fii nga koy dugal ma ne kooku de kon xamul dégg na wax ji waaye xamul lan la mooy lan gaynde di la wër bëgg la lekk nga daw na bëtu mu ba sonn dem tëdd di nelaw ŋaang nga ñëw ne sa tax ci gémmiñ gi ni yow foofu ngay nëbbatoo ma ne ko laa ilaha illallah ñaar ñu gaaw am nañu deewu ko dugg foofu ak lekku gaynde gi moom kay day yeewu rek ngi kërëj kërëj naan ndoxam ni suñu borom alhamdulilah la ma waroon wuti daq ko mu réer ma dafa ñëw fekk ma tëdd ŋaang mu ne sa tax fii kon nag lekkam loolu la yooyu soo ko lekkee li muy jur ci yow dafa bari lool góor ñi daf leen di sonal sonal jigéen jigéen lan la di nga gis jigéen sëy ba dugg boîte vocale doom ba ne ko loolu lan moo ko ko def hémorroïde boobu mook siti bi ñoo leen koy def lan lañu indi li tubaab di wax sclérose vaginale lu muy joxe la frigidité su ma koy tekkil nit ñi ci wolofal dama naan ko feebar bu ñaari feebar yooyu dañuy jur ci moom euh, euh, loo xamante ne day mel ni mbuusu toile bu diis bu wër wërmal buntu sëyukaayam kooku moom da koy mel mu sëy ba dugg baat ba ka doom ba neexu sëy suñu ko mayoon daganal ko ko mu di ko def ak téeméeri góor téeméeri yëpp la naan yéen doo leen dara mënu leen ci man dara rawatina nag benn kii moo tax sëy yu bare tas nañ ci lool les couples se regardent en chien de faïence gu góor ki day yaakaar ne ku jigéen ki ku jigéen ki yaakaar ne ku moom la parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am lu mu leen di def mais gisuñu mag moo xamante ne dana leen taxaw leen liyaar leen yow ku góor ki lii wala dal yow ku jigéen lii moo la dal donc bu ko defee frigidité boobu beneen benn affaire la beneen bi ci des jigéen dina sëy ba dugg boîte vocale du am ban du am doom lan moo ko ko def ñoom ñaar ñu ci bare topp jigéen ji wujju porte yeeg njëkk yeeg euh, yooyu yëpp sonal ko ci ay wax yoo xamante di ko xas di xas ba bëggul lu dul génn ci sëy boobu dem yoonam beneen bi ci des day sëy saa su ëmbee mu naax saay saa su ëmbee mu naax saay saa su ëmbee mu naax saay waxoon naa ko ci wàllu siti bi lan la parce que tàngooru yaram ba muy yor moo baaxul ci nen ci nen bi ci fœtus bi day yokk day yokk tàngooru yaram bi su ko yokkee fœtus bi du mën a développer normal moo tax day dem ba mu yàgg rek daal di kase su kasee nag mu daal di mu daal di ñu ne ñu ne avorté na saa su ëmbee avorté saa su tant que hémorroïde boo accident mu nga fa benn tubaab mën mënu ko ko fajal moo ci àddina amul maa mën bu ko ko mën a fajal loolu foog mu dañ perte blanche bi inflammation du de de l'utérus assèchement naa règle douloureuse cancer du col de l'utérus yooyu yëpp moom lay def jigéen kon su ma koy tere jigéen ñi yaa xëy nañu xam ni waxewuñ ko suñu teeyu ba taayu bakkan mais dañ leen di jàngal pour ñoom ñu mën moytandiku yooyu parce que yu yëpp dañ leen di andi xat-xat ci kër gi ñuy sëyee ci néegu bi ñuy sëyee bu ma ñëwee nag léegi ci wàllu góor ñi ñun gis nga euh, yooyu yuy dal jigéen suñ ko missaalee ak ni muy dalee góor da jëf-jëfinu euh, hémorroïde beeg siti ci jigéen day meneen mbonaat cib déeg mbonaat boobu su bëggulee nga gis ko danaan maw ca suufu ban ba mënoo taxaw ba ni fii mbonaat a ngi fi waaye su génnee su ko neexee nag mu génn nga gis ko mooy lan lan laa bëgg a wax foofu su indi missaal boobu jigéen joo xamante ne loolu dal na ko moo koy mën a wax sëriñ bi doogo ko comprendre wala keneen mën comprendre waaye su nee tekk moom waxul kenn du xam lan la sëy ba dugg baat vocal mën na mën na nax sëriñ bi mel ni ku naan day yëg dara te yëgul dara waaw parce que mos naa mos naa am jigéen joo xam ne ñëw na ci man ne ma man de dem naa ba caatal loolu moom li ngay wax ni man moom laa doon sentir ci man daaraa daaraa sama sëriñ do ko mais bëgguma woon parce que soo ma ko waxee wala mu yëg ko ci man dina am kersa te su dañul day doon xat-xat suñu diggante moo tax dama ko daan nax rek mel ni ko yëg dara maa ngi nii caatal naa ma ne ko feebar la woon feebar boobu hémorroïde boobu ak siti ñoo la defoon loolu mun ma ah su ma yëgoon ma ne ko déedéet suñu borom moo sàkk woon loolu ci yow mii bu ko namoon mu dañ kon dinañ tase wala nga tase keneen koo xam ko mu lay dindal mais namul woon mu dañ loolu la woon kon nag geex na amul problème war naa rien à regretter léegi suñu mënee ci wàllu góor lan la koy def hmm. Euh, lu xaw a dangereux am na góor ñoo xamante ni su leen jàppee dafa am na ñaari phase bii génn ak bu génnul bi bii génn bi moom dinañ ko gis parce que day ànd ak boule bi loolu la wax varice en français soo demee docteur yi dinañ ko gis buñ ko écho dinañ ko gis c'est là où se trouve le aussi parce que bu ñu ko gisee su ñu joxee garab mu sampte lan la ñuy wax opération ablation kaay leen ñu opéré ko ma leen di wax fii képp koo xamante ne dem na ci docteur mu ne kaay leen ñu opéré ko xët ngi nii daal di joosal fii nga signé nii d'accord nga soo signé ni d'accord naa jënd nga bàmmeel sama mbokk yi ma ko waxoon yëpp ñu ne ñii dañoo jàng am seen diplôme yow da nga da nga doon mais ñuy li jàng moo gën a wóor ma ne xaa ñu ne waaw ma ne baax na ñu jël sama benn di jaay may wax ñu ne ma noppil yóbbu ñu opéré mu ne seen may waxati ñu yóbbu sama benn bàjjan ma ni déet ñu ne ma yow toogeel nii yóbbu mu ne sentam yóbbu sama benn cousin mu ne sentam yóbbu sama benn cousin mu ne sentam léegi nag ñu dellu siwaat ne ma waa docteur lan nga wax ma ne déet xaw ma dara comme ñee dañoo jàng man damaa doon ñee dañoo jàng am nañ seen diplôme loolu moo gën a koy koy démonté mën naa ma ko dem ñu ne ñun koy dematuñu parce que ñeent dem na léegi du ñuy jeex ma ne leen nag bu fekkoonte ni ñoom la desoon ci seen at dañ ma ko doon yokkal ñeenti téeméeri at naa ko dund ñun ma koy yóbbootuñu ma ne waaw li li wolof Njaay doon wax rek maam doon ko wax teleel mu ta bàyyil mu gis mag day mag day toog ci suuf naan mi ngi nii jaan jaa ngi nii gone gi yéeg ca kaw septième étage dixième état naan ko dara nekkul bu ñu ñëw ne capp ba pare mu yuuxu ñu ne ko waaw waxoon nañ la ko mais gëmoo woon li maam di wax maam ci suuf lay toog di gis. ci wàllu góor googu di nga gis góor ñoo xamante su leen affaire bi jàppee surtout interne bi bu leen jàppee ak externe bi yëpp bu leen jàppee ah, des fois ci léwtoo yi nii sax bu seen xel nekkee ci lëkkoom ci léwtoo yi nii sax ñoom sóoratu nañu seen biir gañoo moom duñu ko tekkee loolu duñu ko tekki moom am na ñoo xamante ni suñu nee tegg ci buntu soxna si duñu dem tegg rek pare nañu ñoom ñii bu ñu nee salaamaaleykum maaleykum salaam pare nañu ñii dañu koy bëgg saaku ko saaka roogoo taxaw mais du dëgër su dëgëru du am pénétration kon duñ ko mën a def ñii dañuy nekk ba ci digg bi suy nekkee ba ci digg bi saakara jékki-jékki daal ne furaas roceeku guddi googu ñu ne demaat nañ ci soxna si <laughs> ma ne bu ñu ko mënee nañ ko def bu fekkonte ne boo mënoon nañ ko def damay teg paaka bu bees tax bu ñu ko defee nañ ma rendi du ma ma séddee loolu lay def góor moo tax buñoo yi ma soxna yi nañu ko bàyyi ni muy gaañee góor noonu lay gaañee jigéen sëy yu bare tas nañu ndax loolu fa li laay xam di man boo ko maag ñi nga xamante ni day ñëw rek nga ni waaw hémorroïde ngi ni ñu la waaw garab a ngi nii déedéet man damay jàngale yàllaa ma jox xam-xam gi dama koy saare pour nit xam la dara gënul metti nit jóge këram am lu ko dal xamul lu ko dal mu jóge foofu mu ngi ñëw ci lëndëm ak si jàkkaarloog yow ne naay ah, nga fay loo ko mu toog jàkkaarloog yow nga ne ko lan la mu ne la nangam sangam rek nga ne ko garaba nga nii daal di koy jox mu dem ñibbi këram ko di jël di naan mais kooku a ah, dama naan kii de pequl lu tax peexul parce que bu ma taseeg moom léegi ne ko soxna si wala sëriñ bi ah yow de dafa mel da nga feebar mu ne ma waaw ma ne ko waaw yaa ngi naan parce que yaa ngi naan garab mu ne ma waaw ma ne ko waaw lan moo la dal ak lan ngay naan lan na may tontu moom moo ñëw nga ne ko yow lan la mu wax boppam yoo xooloo ko gisoo ko la ma wax rek nga jël garab ni ko jox jëlal garab yi est-ce que loolu la nañu bàyyi loolu ku mën faj dëgg day jàkkaarloog nit ki bu la neexee sax mën nga koo laaj parce que olof Njaay nee na dund doon na xel loolu bu démarré rek yow boo ko xamee arrêté ko soo ko arrêté nee talalal moom noonu lay def fii talalal ñu ma wax naa ko nit ba taay mu ne moom yow dafa mel ni da nga dëkk ak man ne ko dëkkuma ak yow xamante wul ñoo ngi doog a xamante mais feebar bi laa xam moo tax ma commencé ca date ba di la wax feebaru hémorroïde nag ñeenteelu wéeru ëmb la ko ndey ji jox doom ji mu yor ko juróomi weer ci biiram bi banaan cëpp képp koo xamante ni manifestation bi képp koo xamante ni nee na ah, man su ma yeewoo suba ba keroog muy tëdd tëddati la mënumaa dem douche ñetti yoon ci bis bi ma ne ko yaa ngeeg moom parce que bu ñu demee ci biologie nutritionniste tubaab da lay wax quelqu'un qui mange matin midi soir qui n'a aucun bobo sanitaire doit aller au minimum journalièrement deux fois au maximum trois fois intervalle fermé donc la gën a gàtt ci mu dem ko bu fekkee amu ko mooy ñaar la gën a bëri mooy ñett te waru koo wàcc ku ma naan nag benn nekk koo ci intervalle boobu ñuy wax diggante boobu ngay wax de ku naan nag damay tëb ay fani fan ma ne ko yow feebaroo da dem te waaw da dem të tëdd tëdd tëdd ca naaj ba saraxe sa bopp léegi nag loolu pour ñu euh, sa bopp aussi sa bopp boo euh, taxawee naan ma sama côté bopp bii moom ma sonal di metti ma ne ko moom la sama biir day jooy kur-kur ma ne ko moom la ndigg tànk oom suy metti moom la te ñoo yooyu tànk ndigg leeg tànk yeeg oom yi suñu dee métti juróom yii bu ñu ko defee bu dañee lu sama askan raxasoo ma naan mocc moos naan doomu pharmacie fas yooyu ñu jaay naan sa fasu ndigg yooyu jëlal takkal bopp ba ci bu dañee lu sama askan raxasoo ma naan yii boo ko gisee rek xamal ni hémorroïde la ci góor ak ci jigéen yëpp ñu daal di yeneen yéene nag léegi dugg ci paj mi paj mi fii ci docteur Sidi garab yi ma ciy joxe ñu ngi nii ñetti garab la ñetti garab la kii sunguf la dañu koy jël ci diggu lekk yi juróom benn comp kii gelée la bu ñu defar ak lem kii dañ koo defar ak lem dañ koo defar ak lem mooy ànd ak kii kii moom ah, ni mu ni koy defee bind naa ko ci ni ñu koy naane bind naa ko ci da ngay jël ñaari liitaru ndox am foo ko def foo ko mën a baxale soo tegee sotti ko ci biir comme ni ngay defaree sexew wala ni ngay defaree eh, eh, ataaya soo tegee ñoom ñaar ba nga xamante ni ndox mi mi ngi commencé bax di yëngu nii di bax rek nga xool sa montre nga calculer lu mat fukki minute ak juróom bu ko baxee nga xeet euh, teggi ko teg ne ba mu sedd nga xent ko soo ko xentee def ko ci butéel bi mel nii yii mooy butéelu litre a genn wàll bi mooy bu kireen bi litre a genn wàll bi kii nag mooy ànd ak gelée bii parce que kii saa yoo ko lekkee ba pare dafay bàyyi ci sa ci sa làmmiñ lu mel ni ay euh, grain wu cere yooyu nag ñoom ñooy lijjanti hémorroïde bi moo tax saa yoo lekkee kii ñaari yoon nga koy jël nag soo ndékkee ba pare ak soo reeree ba pare saa yoo jëlee fii rek ba pare rek da nga war a naan ndox bi parce que grain yooyu dañoo war a dugg nga jël kaasu attaaya jël ndox bi xelli ba mu fees naan galax ndikoo ko war na lii mooy hémorroïde bi génnul bi ak buy génn bi léegi nag bu fekkee nag daf ci toftal nag léegi di génn nag ah ci la ñuy doog a andi pommade bi pommade bii parce que boobu di génne ànd ak picc bi loolu la ñuy wax en français la varice pommade bii moo koy génnee pommade bi benn yoon lañ koy jël ci pet mi moom dañ koy jël soo soo soo dee tëdd guddi nga jël ko def ko euh, sous forme de suppositoire ak sa baaraamu ceñeer bu càmmoñ bi nga di ko ci diw guddi gi nay xaw a bari nag guddi gi parce que da ngay tëdd di nelaw donc yëngatu woo demoo doxoo bu dee suba si soo sangoo ba pare jaaxaan sa kaalwaat defaat ko ci waaye tuuti nga ciy def parce que boobu yaa ngi jóg gi liggéey wala ngay dox say muraada garab yi nag ñaari weer juróom-benn fan mooy traitement bi lu tax muy nekk ñaari weer juróom-benn fan parce que garab bi gaam bii soo koy jël gaam bu nekk fukki fan ak benn lay am. ci weer bi ni nga jël ñetti gaam parce que boo defee fukki fan ak benn mu jeex nga ñëw jëlaat benn def fukki fan benn muy ñaar fukki fan ak ñaar mu jeex nga jëlaat benn def fukki fan ak muy fanweeri fan ak ñett weer ak ñetti fan dem nga ñëwaat def fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñaar fanweeri ñett weer ak ñetti fan weer ak ñetti fan mu ñaari weer juróom-benni fan ñetti gaam ci weer bi ñetti gaam ci mu juróom-benni gaam gaam 7000 ñu ngi nii gaam 7000 la donc lii laa boon wax ci wàllu hémorroïde feebar la boo xamante ni bu garaaw la bu garaawul garaaw na su fekkee xamuñu ko ànd ak moom parce que di nga dégg ñu naan la crise d'hémorroïde day dem ba fu nit ki day tëdd ba daanu ci suuf xëm ba crise léegi ma am leneen lu ma leeral ci wàllu hémorroïde boobu am na wax yu may dégg ñu koy wax wax jooju dama bëgg mu leer tey ji gis nga ne seen tànk dina dina dina dina metti mel ni courant bu koy maas jàpp ko ci penk bi fii ba ci suuf ñu naan la da nga am sciatique wala ñu naan la colopathie fonctionnelle hernie discale rhumatisme arthrose yooyu ñu lay wax yëpp xawma kan lañu koy wax waaye képp ku ñu ko wax man docteur Siti nee naa ngeen xool kooku ñu ko wax ren ba déwoon bu wéree lu sama askan ndax soo ma naan parce que xamuñu ñoom dañu jàpp seen seen seen seen bopp ni peut-être ak yooyu yooyu duñu feebar ay wax la rek c'est du vocabulaire sciatique boobu ñuy wax sciatique du feebar parce que dañ lay wax nerf sciatique sciatique du feebar tey dinaa leeral lan mooy sciatique sciatique man ba ma koy jàng troisième laa doon def 1981 laa ko jàng boobu maa ngi woon usuy ci àllu usuy boobu amoon labo suñu koy jàng dañu naan prof bi naan la semaine prochaine dinañ jàng la nerf sciatique mu ne leen moo ñu boo leen di ñëw nag dafa am juróom yéen di indaale ñu ne ko lan mu ne wut leen benn kees ñu ne ko waaw mu ne kees boobu ngeen liggéente noo leen di amee mbott ñu ne ko waaw mu ne noo leen di amee lamset ñu ne ko waaw noo leen di amee puso ñu ne ko waaw mu ne noo leen di amee pont ñu ne ko ah, mu ne juróom yooyu na ngeen ko indaale fexe leen ba ngeen ko indaale ñu ne waaw ah semaine boobu jotee bis ba jot ñu dugg si problème da naan waaw ana jumtukaay yi ma leen laajoon ñoo ni jumtukaay yëpp te ku ne yëkkati nag parce que foofu dañuy def euh, nu ma tati euh, kii ci labo bi ñëpp a yor ñëpp ay liggéeyandoo en même temps ñëpp indi teg mu ne waaw teg leen nii dem ci tableau bi daal di bind daal ni quand est-ce que qu'on dit que euh, cliniquement qu'un qu'un qu'un qu'un qu'un euh, qu'une chose qui est morte cliniquement quand est-ce qu'on dit qu'une chose est morte cliniquement ah je vous laisse cinq minutes ngeen réfléchir bon ñu réfléchir cinq minutes passées vous avez fini ñu ne waaw mu ne leen lan ngeen xam ñu ne ko ah pour mu dee dee xanaa bu xool bi taxawee ñu daal bind ñu bind ñu ne ah kii daal nit bu noyyi bi taxawee quand le quand quand quand kii reste euh, la chose euh, cesse de respirer ñu bind. bon mu ni ñu moom ah waaw yéen bu fekkee ne da ngeen jàpp ni saa su nokk gi taxawee loolu dee na mosu leen gis koo xamante ne day day day leb ñu làqi ko nii nga gis léegi ñu commencé defal ko massage cardiaque defal ko bouche à bouche jékki rek mu ne ah ndox mi génn ñu bërën koo kii euh, gars yi sapeur yi ñëw jël ko ñu ne ko si mën nga mu ne est Euh, nokk bi taxaw rek mën nañu certifier que ni kii dee na ñu ne déedéet comme dund na kay kooku moom du woon lu dee mu effacé ni nu boobu baaxul mënuñu léegi ngeen seetaan benn film film policier yooyu nga gis koo xamante dañu ñëw rek bandi bi roose ko bal gars yi sapeur yi ñëw jël si ko bi ñu ko jëlee dugal ko ci ambulance bi tegal ko seen masque yooyu daw ak moom bu ñu dawee ba docteur yi ñëw tiim ko ñu ne bon xaaral ñu lijjanti commencé yi ba mu yàgg rek électrocardiogramme commencé na tiit ñu ne ah kii de ñoo ngi koy perte ñu ne léegi jël leen jël leen jël leen électrochoc bi mooy yooyu nga xam ne dañu mel ni fer ñu yor ko daal di daal di ñu ne ñu daal di def benn danse mu ne def leen benn voltage ñu dem benn voltage nga gis ñu teg ko ci dëndu euh, aji kii bi ñu ko tëj nga gis mu ngi mu xool affaire bi ñu ne yokk leen affaire bi ñu yokk a puissance bi duuraat mu ne teg rek ñu dégg affaire bi tiit tiit ñu ne ala wala récupéré ñu ne waaw loolu gis nañ ko mu ne léegi est-ce que léegi arrêt cardiaque mën na certifier que li dee na ñu ne ko déedéet mu ne boo baree leen ñu daal di taxaw mu ne léegi nag lan moom mën a wane ni nit ki ko loolu kon dee na ñu ne ko ah ñu de laa ñaar yooyu lañ ci xamoon mu ne déedéet sujet buñ la ko joxee da ngay xool les mots clés yi ngay xool rek daal leen définir boo leen définir rek après tu pourras comprendre mu ne léegi xool leen fii ñu xool xool xool daal ne ko ah ñun de xanaa cliniquement voilà mu indi clinique daal di koy teg daal ni clinique nan lañ ko bindee ñu ne ko ah radical ak ak ak suffixe mu ne din leen suffixe bi lan ngeen jox ñu ne ko clinique. mu ne waa clinique lan la ñu ne ko ah hôpital boo xamante ne ay médecins yu xereñ ñoo ci nekk mu ne très bien loolu la ñuy wax médecin bu xereñ boobu tiim leen na ba ni lii dee na ñu ne waaw ñu ne très bien ñu ne boobu la ñuy wax bu fekkee andi nañu lépp kooku ci clinique ba médecin bi nga xamante ne moom moo ay xereñ tiim ko ba ni lii sayee kañ la ñu ne ko ah boobu ñun mënu ko xam mu ne léegi naa leen wax leen am na loo xamante ne moo yor nit loolu su taxawee moom c'est de manière irréversible jeex na tàkk ñu ne ko lan mu ne yuur yuur mooy ordinateur u ñu ne ko xamaa mu waaw ordi bu yuur gi taxawee moom fonctionné jeex na takk dootul dina def koo koy aji suulee rek ñu ne ah mu ne très bien léegi nag tey loolu la ñuy démontrer dinañu jàng rey mais yéen rey boobu du tayee fu bakkan mais dañuy jàng ñu ne ko lan la ñuy rey ñu ne mbott mi ñu ne ko ah mu ne eh da ngeen bëgg nekk docteur mais il faut ngeen jàng rey ah. ñu ne ko waaw mu ne waaw parce que di nga gis sax koo xamante ni aji dee ñu ñëw ñu ne xaral biir bi autopsie ko xool lan moo ko rey gooy ñu ne waaw lan la da ngay jàng da ngay jàng nen bi ngay jël di ko toj di ko togg rey nga pour dundal ñu ne ah mu ne nen bi cuuj la am na parti boo xamante ni mi ngi ci biir doo leen ko gis ci ci ci euh, zone bi benn kii bu xaw a weex ni kooku bu ko bu ko ganaar gi di buuf mais loolu mooy nekk cuuj bi léegi nag boo boo jëlee nen bi togg ko cuuj ba waroon génn dee na mais yow da nga ñëw pour dundal sa bopp rey nga cuuj rey nga cuuj pour dundal sa bopp ñu ne ah très bien léegi nag dañuy jàng mu ne waaw comme dañu ni nag yuur moom bu taxawee léegi def ki dee na kay leen ñu essayé loolu jël leen mbott bi ñu jël mbott bi téye ko mu ne ana pont bi génne leen pont bi ñu ko ne pont bi. mu ne da ngeen koy dëj ci yuur bi fu mu nekk ci karaan bi la nekk da daaj daaj leen ci pont bi ñu daaj pont bi ñii dingañ nag yooyu mu ne da ngeen nekk météo daaj leen ñu daaj mu ne rëmbaaje leen ñu rëmbaaje rëmbaaje rëmbaaj ba lépp di murux rumbux mu ne dindi leen pont bi ñu dindi pont bi wàcc bott bi mu ne tekk mu ne léegi déglu leen nokk bi ñu déglu xool dara yëngatootu ñu moom mu ne yëkkatee leen ko ñu yëkkati sànni dara du yëngatu ñu léegi am benn kii boo xam ne lu ñuy wax es ci kii bi mu ne léegi jël leen euh, sikkimu affaire bi nii ngeen lon ci es bi ñu lon ko ci affaire bi mu tàlli ay tànk yi nii mu ne bon léegi jël leen jël leen euh, ana ana kii bi euh, puso bi ñu jël puso bi mu ne léegi ñeenti tànkam yi jam leen ci puso bi ngeen xool parce que boobu bi ñu bi ñu xamante rey nañ ko ba pare mu ne leen bind leen la chose est clean nga ñu bind ko mu ne léegi jam leen ñu jam affaire bi tëb nga gis yenn gars yi daw mu ne ragal ngeen loo xam xamante rey nañ ko ba pare mu yëngu rek ngeen di daw ñu ne ko mais pourquoi mu yëngatu mu ne dem leen jam leen ñeent ñu jam ñeenti tànk boo ci jam rek mu yëngatu mu ni léegi lan ngeen gis ñu ne ko ah lëf ki moom dee na ba pare mais pourtant bu ñu agressé tànk yi day day day day répondre pourquoi mu ne bindi leen la chose est clinique nga montre mais quand à moins agression des pattes la ça réagit ñu daal di bind mu ni léegi teg leen teg leen puso bi ñu teg puso bi mun ne jël leen jël leen jël leen lamset bi mu ne léegi bépp sidit boo gis ci tànk bi rek daggal ñu dagg dagg dagg dagg dagg dagg dagg dagg yëpp tànk yi ne daal ni soreet nii nii mu ni léegi jëlaat leen tegleen leen teg leen euh, lamset bi ñu teg la mu jël leen puso bi ñu jël puso bi mu ni léegi jam leen ñu jam laf ñu ni teg ñeenti tànk yëpp ñu jam lépp ni teg mu ñu waa loo leen gis ñu ni ko ah léegi de moom jam nañu mais du réagir nee na teg mu ni lu waral lool ñu ni ko ah mën na am daal am na loo xamante ne ñun dagg nañ ko moo taxoon loolu di def noonu mu ni très bien yéen nga commencé muus nag mu ne mosu leen gis xarum tabaski boo xamante ni dañ koy rey ayaata waaye boo laalee muy raf ñu ne ko waa gis nañ ko bataay banaan paa bi leen loon affaire mais am explication mu ne nag sidit boobu nga xamante ni sidit boobu nga xamante ni saa su lëf ki deewee soo laalee mu yëngu tant que boobu deewul boo laalee day yëngu loolu moo tudd le nerf sciatique donc c'est le nerf bi nga xamante ne mooy gérer les réflexes benn après la mort de la de la chose donc sciatique encore une fois du maladie sidit la c'est un nerf moo tax ñu naan la nair sciatique donc waruñu nit sonn tànkam di métti ñu ne ko sciatique nga am képp koo xamante ne wax nañ ko sciatique nga am ba ba muy dee du mës a ñu ci bare ñu ko wax nañu xool. cinquante ans ñuy maaseek def acupuncture du ma dañ parce que loolu hémorroïde bi moo ko def ma jàngal leen ko tey jii colopathie fonctionnelle boobu hernie discale rhumatisme yooyu ñu leen di wax yooyu yëpp hémorroïde moo koy def d'ailleurs sax boo leen laajee ñu définir le terme de colopathie daf leen di jaaxal ñu ci bari posé na ko la question à quatre docteurs du wax nag man hôpital la parce que léegi ñu identifié la mais ma sama doom moo feebaroon il fallait que sama jabar naan ma non bàyyi ñu xool lan moo ko dal ma ne ko yow lii asma moo ko dal mënu ma déedéet ah ma ne ko léegi je vais te faire de plaisir ma yóbbu ko foofu bu ñu ko kiyee garab gaa ngi nii te ñoom dañu ko faj bi ma ko yóbbee effectivement ci hôpital boobu ñu xool seen affaire def analyse affaire ils ont dit que ni asma la ma ne ko léegi na nañ dem ñibbi suñu kër ñu garab en en en en un nga dem sa yoon moom la sama doom def. léegi nag bi ma toogee foofu ma ne léegi ñii dinaa xool seen niveau de de d' instruction man leen yéen euh, mais maire yi nga ñi nga xamante ne ma tawal ci hall bi mais ñii estoma sonal naa leen ñu ne ma waaw waaw estoma bi kay moo sonal nit ñi ma ne xaa ah, ñu ne waaw man leen ak colopathie bi ñu ne ma waaw waaw man neen man leen kon estoma feebar la ñu ne estoma feebar la ma ne ah ay waay ndeysaan est ce que juumu leen ñoom ñu ne ma sëñ bi yow fan nga jóge man leen ah Sénégal gii fi jànge jàngee fi laa màggee fi laa yoroo fi laa jàngee mosuma génn amu chance génn fi laa jàngee sama université yëpp fi ko def ñu ne ma mais euh, estomac du feebar ngay yor ma ne leen ay waa ji ngeen de estomac du feebar ma léegi dinaa leen ko jàngal euh, suñu reyee xarum tabaski ba pare daal di koy fees suñu tijjee biir bi lan lay ñu njëkk gis kii ne ma butit ma ne ko gisoo butit de gisoo gisoo ko butit wala yow mosoo soo ko fekke de góor ñu fa nekk daal ne ma ah mais Grèce la ma ne ko waaw Grèce gi boo dajee boo di néegi ni Grèce pare lan ngay jàkkaarloo ñu di ma xool ma ne leen léegi ma jox leen békki mbuus moomu mag moom nga xamante ne boo lekkee mu naan ci eh, dem ci boo naanee mu dem ci lan la kenn ma mbàq ma ne ko waxaat ko mu wax ma ne ko wax ko ñetti yoon ma ne ko mbàq boobu mooy estomac en français léegi nag lan la nan la nan la ñuy jëlee feebar daal daane léegi eh, tudde ko benn cër déedéet su cër bi feebaree tuddal la ko feebar te bàyyi cër bi estomac du feebar estomac mooy mbàq ci wolof moo tax képp ku ñu déclaré ni estomac la am bàyyi lu forox lii bàyyil pat beeg yooyu ma ne leen yéen ba ba ngeen di dee boo leen wéree lu sama askan ndaxu soo ma naan boo déggee ñu naan la waaw boo lekkee da ngay moytu pat beeg affaire yooyu quoi ma ne leen léegi il faut aller demander aux italiens ñoom ñi nga xamante seen addina yëpp pat la ñuy lekk bu fekkoon ne pat mooy joxe loolu kon ñoom dee nañu bu yàgg suñu mbokk moo di ñu italien yi ne foofu laaj leen ay pat lañu la ñu leen kon ñu dee woon nañuy wax nit ñi à juste raison lan la colopathie fonctionnelle boobu ñuy wax ah soo leen bëggee sax ma am loo xamante ni euh, yor naa ko fii ma démontrer leen lan mooy lan mooy mbaax wan maa sama gars dama leen di wan